asalaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni bi ñoom ñooy ñiy seetaan si seen bi nga xamante ne bi moom mooy Sénéco yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq tey di leen baal di leen ndokkele tamit ci bés bi nga xamante ne bii moom lañ nekk nii di bës bu màgg boo xamante ne bii ñàkkul ne am nañu ko réere waaye muy bës boo xamante ne bii boroom daan na ko màggal lu giitu mu fi jóge bi mu fi jógee it bàyyi fi doomam ju baax muy xalifa bi Mawlana Mohamed bi mu kontine di ko màggal bés boobu nag di bés bi nga xamante ne bii moom la suñu boroom dogal wàcce leeru yonente yàlla Isa si jëmm ji nga xamante ne bii moom mooy jëmm Mawlana Mohamed Seyni xalifatullah fil ardi te moom tëdd nii si suñu ginnaaw xabroom nekk noonu leer googu nag sang bi dafa wax ne suñu boroom daf ko yee ay nelaw fekk boobu mu ngi nelaw nekk si baatin suñu borom mi yéege ko bi mu ko yéegee nag ne mu yéegal ko ñaareelu asamaaw bi mu ko yéegee ba ñaareelu asamaaw suñu borom donele ko leer yonente yàlla instant gi nga xamante ne bi suñu wo suñu borom digge woon ne ni instant dina wàcc mu jug jamono wàcc te nag mu ngi am ci 1965 ci 1965 la am boobu sang bi mu ngi am 39 ans 39 ans la am wàcc donc 66 la am mille 40 ans wàcc gi yàlla suñu borom daf ko yëgal ba asamaawu ñaareel sol ko fa leer leeru yonent yàlla instant ne ko da ngay wàcc mu xool suuf mu mel ni ballon football ñu jañ ko puus ko mu daal dina aoudu billahi min asheytaani rajim tànk bi laal suuf mu xool suuf suuf laa wax de suuf ne ko yaa ardu yaa ardu inni rasulillahi xalif lay fir ardi bi nag nga xam ne mooy grade bi nga xam ne mooy dox digganteem ak doomu aadama yi daf ko seede ci digganteeg boromam ci baatu ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi wa ashhadu anni xalif baay fi ci anam yu bari digganteem ak boroom ak ci seede ki nga xam ne mooy indi mission yàlla yi muy Seydina Jibril bi mu wëlbatukoo nag daal di woote ne suñu boroom def na ko muy xalifaam si kaw suuf nana sang bi waxoon na ne àddina ab xalifatullaahi fil ardi moom moo ko ibbi woon te maam aadama suñu boroom def maam aadama muy xalifatullah fil ardi mu ibbi jamono ba ñu demee tamit ba lu yàgg suñu borom si la falaatee suñu maam daawda ne ko yaa daawda inna jaalnaaka fil xalifatan fil ardi bu ñu demee nag ba jamono aaxir zaman muy tëjtalu jamono suñu borom si la wàcce waatee ñetteelu xalifaam muy Maulana Mohamed Séni xalifatullah fil ardi mu wootee le 6 mars 1977 sang bi léppam marché la ba muy wàcc marché la ba mu wootee marché la woon ba muy faatu marché mois de mars spirituellement donc c'est un mois boo xamee ne dafa am sens am illa ci moom am loo xamante ne ni moom la ko ci yàlla jagleel muy bés bu màgg nag ñu koy màggal moom wax ni ci làmmiñam mu ne bës bii bu amee bës bu koy ëpp doole juddu yonent bi dong lay doon amul beneen bés bu ëpp doole ci suñu borom subhanahu wa waxuñu ci yàlla nag digganteem ak boromam la ñu amuñu dara luñ ci yokk wala amuñu dara luñ ci wàññi nee na man ndaw yàlla la ci baatu xalifulaay fir ardi xalifulaay fir ardi ñett la ñu ne moom moo ko wax mu ne aadama moo ubbi Daouda moo ci tegu man maay tëj adduna caabi bi ubbi bunt caabi boobu moo koy tëj aadama moo ubbi adduna man Khalifa Laye Fady tëj adduna. na si ñoo xamante ne nag dañoo jàppoon ne instant si boppam jëmm ji yéegoon moom mooy wàcc waaye sang bi si boppam moom moo ñu ko leeralal sang bi ne suñu borom daf ko yóbbu ba ñaareelu asamaaw suñu borom jël leeru yonente yàlla instant. donale ko ko si jëmmam dig ko nekk suuf sële si ngay wàcc sang bi ne bi mu nekkee si yaaneelu asamaaw xool suuf ñu ne ko da ngay wàcc nee na suuf si mu ngi tuuti lool mel ni benn bul bu ndaw nee na nag jamono boobu moom tiitoon na waaye nag am baat bu ne yaa ngi wàccee si baatu auzu billahi mina seytaani rajim sang bi nee na si noonu rek la mel ni dafa am lu ko bëmax nee na mu jógee ñaareel asamaaw di daayaarlu di daayaarlu di wàcc nee na nag bi muy wàcc wàccee laa ne wàccee waale na ah baatu auzu billahi a seytaani rajim mais nee na diggante bi muy wax a auzu billahi mina seytaani rajim ah bi muy egg si miimu rajim nee na tànkam bi yegg na si suuf nee bi mu yeggee tegee tànkam bi si suuf tamit mu daal di wax ni yaa ardu inni rasulullahi yow suufkat maa ngi lay xamal ne man ndaw laa si sa kaw yóbbal bi daal mooy ne ku fiy ñëw na nga indiwaale toroxlu ak ut si yàlla. gis nañ da ngeen farataal weex de weex bi yàlla moo ko ko sante nee na bi ma jógee asamaaw di wàcc dañ ma sàng mbubu weex ma taraxlaayu taraxlaayu boobu ma taraxlaayu ne cëpp lu weex loolu laa sol. dellu gannaaw bi nga xamee ne jumaa ji wàcc na te jumaa ji dafa wàcc asamaan la jógee mu topp ko ba fii. nekk na kéemaan ci ñu bëri ndax géej gaa ngi nii jafe na nga tabax lu jege géej euh, ak yenn fondation ak ni jamono tëddee secret bi lan la. mais secret bi yàlla def ko woon place bi avant ñu fi def jumaa yàlla def ko ko woon mu nekk place su leer ñu fiy ñëw. du fi jaamu yàlla te amul juma ñu ko ta dañ ko daan tànt mu toog fii ñu tànt ko di fi def suñu ay journée de prière kon place bu leer la place bu leer la boobu nag la ko yàlla ne xoolal mu xool mun na ko gis nga jumaa ji dama koy wàcc topp ko mu koy topp di ko topp ba mun a cëp fii ba mun a cëp kon jumaa ji aussi dafa am secret boppam ay yàlla la moo tax yàlla ne ko aljuma bu jotee du weex nga doon wax këpp kuy dugg ci biir jumaa ji na sol lu weex ñun ñu am yaatal bu ñuy yaatal su gan ñëwee solul lu weex am nañ fi ay mbubb yu weex boo bëggee dugg te feesul ñu jox la mbubb bu weex nga dugg julli soo paree nga delloo suñu mbubb ñu fóot ba mu set teg sang bi tëdd fii dafa wax ne bu àdduna xamoon bés bi mu ne boon ñëpp dañuy maase di ko màggal ni ñuy màggale mawludu nabi comme ni ko ki waxe bon euh, boo seetee àdduna ay miliyaaru nit ñoo fi ne bon bu yàlla tànnee bu yàlla tànnee ci nit ñooña benn mbooloo buy bu yàlla xamal bés bi ñu di ko màggal ñooñu dañu war dolli war a dolli sant yàlla te xam ne ay tànneef lañu ndax ci ay milliards yu nit yàlla am ñu mu ci tànn yëgal leen ba ñu yëgandi lii ñooñu war na ñoo xam ne yàlla desul leen dara di mu leen boole ca tànneef yooyu di ñaanal nag ñépp eh, nii ko góor gi daan waxe naan yii yàlla nañu ko yàlla xamloo ci ak dal te bañ ñu ko xamloo ci fitna yàlla nañ ko yàlla xam loo xamal nanguloo àdduna ci ak dal te bañ leen ko nanguloo ci fitna loolu la daan ñaan donc loolu it nañuy dellu rek di ko euh, di ko di tey ñaan ah, comme ni ko suñu euh, soppe bi waxe nit ñi xam ne yàlla moo moom diine te yàlla mooy def lu ko neex te yàlla dara tewu ko bon lii ci am mooy eh, suñ soppe bi daan wax naa nit ay ay mbuusu yàlla kese lañu te mbuus bu ne yàlla moo xam la mu ca denc bon nañu fonkante respecté kenn ku nekk ñu jox la cër te kenn ku nekk ñu nangul la la yàlla def ci yow ndax yàlla moom subhanahu wa taala ku ko sosol te du dëgg dina ko jëflanteeg yow amul kenn kuy ñëw di jéem a nax doom aadama yi ci yoonu yàlla naan maay lii maay lële mu ñàkk nekk dëgg yàlla bàyyi la ci donc lii xamee ne nag kilifa Sénégal yëpp ñu baax ñëpp yàlla ja jëflante nañu ak sanga bi donc loolu boroom xel boroom xel bu nekkee ci ab dëkk nga dégg mbir mbir moomu da dox ba yegg fa boo fa yeggee di nga am la bonne information mais booy colporter ay information de gauche à droite man ngaa daje ak koo xamee ne du ab du ab soppe mu wax la loo xamee ne du noonu man nga daje ak koo xamee ne eh, soppe la mu xaabaabal boo ñëwee ca suus ba dëgg ngay am lii fi xew ci ci mbir mi mooy ne kii yàlla la yàlla yàlla royloo ko yonante bi donc moom tànkam ci charia la ko tegoon yàlla delluwaat gannaaw ba mu wax ba mu santee jullit yëpp ñu topp yonant bi moom dafa joraat ordre moom personnel ñu ne royal ci yonant bi kon moom amul droit véhiculer lenn lu dul charia bi yonant bi toppoon euh, dernière question lu tax ñu daan ko wax sàng bi baatu sàng bi sàng bi sàng bi sang bi nag dafa moom ci boppam moo wax ne baatu sang bi day neexul bañ ndax jibril mooy yëkkati loxoom nekk cheikhu zaman cheikhu zaman sangub jamono bon loolu jogewul ci nit ñi ñi ko gënoon noonoo sax sang bi lañ koy woowe bon nga xam ne loolu mbirum yàlla la du mbirum nit ñu nuroo nag ak kuréel yu bari parce que sang bi ñëpp dafa am lu mu tibb ci ñoom dafa mel ne fii innamal mu'minuuna ixwa moo fi daje bayna axawaykum wattaqullah mooy la woote sag bi dafa ne man woote wu ma yàlla dafa ne ma booleel ñëpp nga wuuf leen mun na dinaa wuuf ñëpp donc ñëpp la wuuf yàlla nag boole ko ak góor yàlla yëpp kenn nekku nekk mu am lu mu jëf leen teg yow moo tax wuufeel bi booy boo ñëwee fii da nga def ñun ay laayeen lañu d'accord ay laayeen lañu parce que maam li maam lu mu wootee dara gënu ko sell boo ñëwee fii da ngay defe ne ñun ay murit lañu ngir sag bi bu waxee ci Touba rek li mu wax ci Touba man ba may dem Touba mu ne ma Touba dëkk la boo xam ne dëkku leer la boo demee tubal ci suuf si nga boo ci tubee ñaan delloo ko ci loo ci ñaan yal nangu sag bi salaatu fàtte la doon werd macha allah. dafa dund dafa dund ci ab dëkk lu mat ñeen lu mat ñeen fukki ñeen fukki at ak lu topp génn ci dëkk bi. ne seetlu naa ba gis ne sama loxo bi musuma cee tooñ sama borom sama tànk bi musuma cee dox lu sama borom musuma tooñ sama morom ci doomam musuma tooñ sama morom ci soxnam musuma tooñ sama morom alalam waaw kooku ndax du sanga man li may dolli mooy sama mag ñi wax nañ lépp mais damay dolli rek ne sang bi daf ñu yar ñun bi ñu nekk tuut tànk am 16 ans ñu ñëw ci ronu sang bi mu yar ñu ba pare may ma doomam kii doon wax ni ki njëkk a wax kooku papa si xalifa bi fi nekk donc rakk la si sang bi précision boobu laa bëggoon indi te aussi jumaa ji place bi bii nga xamante ne sang bi suñu boroom war naka place bi pour mu war ko liggéey repérage bi doon def repérage sàng bi toog na plus de trente ans tegul tànkam mais ñun puisque bu ñu xëyee neuf heures dañu ñëw ci keppaaram mu ñuy wax suñu diine di ñu teg ci lislaam di ñu teg ci njub ñu am benn jour ñu ñëw toog mu ne ñu da ngeen di dem géej boo leen demee ngeen defal ngeen defal ma recherche parce que bërëb bii jumaa ji tegu tey ay xeer rek la woon man mi bokkoon naa ci témoin yi ñi ñëwoon fi def repérage donc bi ñu ñëwee avant trois xeer ñu former forme rectangulaire ah kii euh, triangle triangle moom mooy repère bi ñu ñëw di wër di wër di wër te bi ñuy génn këram daf ñu jox décamètre la ñu jox ñu téye bi ñu ñëwee mu ne ñu boo leen gisee xeer yi benn bi jëm si tali bu njëkk bi tali géej gi bu njëkk bi tant de mètres waxoon nañu bii jëm yoonu géej si benn bàmmeel bu ñu dencoon foofu benn waaye bu fi teeroon mu ne tant de mètres di jëm si côté bi nii nga xam ne sump moo fi noonu ay teen mu ne boobu tant de mètres bi ñuy wëree ba gis xeer yooyu ñu mesurer que exactement li mu jox si nombre de mètres yi ëppul yeesu man mi témoin la j'étais présent j'avais j'avais j'avais dix dix-sept ans dix-sept ans dix-huit ans léegi j'ai une soixantaine vous avez compris donc lii du caaxaan. lu dul dëgg du yàgg. lu dul dëgg du yàgg. te njub rek moo wóor. njub sell ragal yàlla li sang bi woote daal ñun si lañu nekk. suñu njabootam ci la nekk. ku nekk si àdduna bi boo taxawul noonu am jàmm moom loolu la ko taxawee foo mënti nekk nabilaay nga si mbooloom nga bokk parce que moom mission am c'est kon de maa ngi leen di sant di leen gërëm kontaan naa lool ci interview bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu